Euh, alors nous, Seck. man damay tàmbali ak yow. Euh, ñu ñu partager actualité bi. mooy mooy li fi xew démb partager actualité mais fi may njëkkee ak yow. mooy lan moo xew Touba au niveau de la jeunesse Je jërëjëf sais xam nga jeunesse à APR du Touba rek la un problème c'est à travers tout le Sénégal. parti APR c'est un problème man je ne masse pas mais moi je dis la vérité damay militer ci parti mais mais parti bi dafa doxul à tout moment dañuy perdre les élection te bu ñu ko perdre donc dama jàpp ni APR moi mooy responsable essayer yi mu am les grandes villes parce que taxawaay bi ñu war a taxaw taxawuñu ko je prends exemple comme mel ni Touba bi mu dëkk pratiquement dañuy bàyyi ba élection jub si ñu jël seen xaalis ñëw wax ak ne parlons pas avec les politiciens souvent nous ñu amee ñu ñuy waxal peut-être si maraw yi la ñuy jaar wala ñeneen ñi nga xam ne si ni représenté wuñu peuple bi dama foog ni bu fekkee da nga yor parti politique di laaj baatu askan bi da nga war a dem si politiciens yi saytu bëgg-bëggu askan bi laaj leen seen ay xalaat mais nga dem si ñoom au lieu ngay jaar ci ay guide si yeneen ñoo xam ne si nii du ñu apporter li nga bëgg problème boobu moo am Touba moo am feneen ak feneen ak feneen raison pour laquelle pour parti bi mën émerger comme ni ko bëggee du yomb ci Sénégal gi yépp lolu moy première question de situation bi. Hein. Mhm. am nañ am nañ doole ah c'est toujours de la politique. wala boog ay xam nga am guide religieux yoo xam dañuy def politique. Mhm. on est d'accord que ñom bu ñu bëggee def politique ñu wacc ci terrain bi def politique. Mhm. dem ci askan bi luñu leen jox ngir askan bi ñu dello leen ko mais amna na guide religieux yo xam si nii dañuy bëgg utiliser sen pouvoir religieux pouvoir guide religieux bi yor.

mais ay ñoom sëñ Modou Bousso Dieng yi nga ils sont toujours battus euh, pour Touba pour APR euh, par rapport Touba ba ci sax am ñoo xamante ne dañ ko mere ñooñu am quand même est-ce que une jeunesse bi y a une saluer c'est euh, seen liggéey par rapport je ne parle pas de sëñ Modou Bousso Dieng dem li boole moo ko ci catégorie marabout yu may wax ah parce qu'il n'est pas plus marabout que moi ah hmm? mais il n'est pas plus marabout que moi boole boolewu ma catégorie ñoo bokk famille non pas xeeb minimiser wu ma ko xeebu ma du naw dañu bokk famille yaayam Dieng la sant sama yaay sant Dieng il n'est pas plus marabu que moi waxoowu ma si catégorie yu marab boobu am na yeneen marab yu ko ëpp. peut être kon ci kaw tamit da nga leen a xeeb parce que. fi ci sa wax dafa leen wegoo leen. non du loolu xam nga politique dafa am nu muy doxee. da ngay bokk ci parti politique nga adhéré si am carte membre wala nga bokk ci ñu xam ne yow da ngay milite ci parti bi nii. ñu bëgg la a jox yenn considération. fii Assane duggee ak yow ban problème ngeen problème bi ñu am mooy parti bi moo ñu fulaalu ni parti bi structuré guñu ko. waaw mais war a mën a toog ba ñu naan diw mooy diw. xam nga bu fekkoon ne jox la Touba considération du fal gouvernement boo xam ne benn nit amu ko amuñu benn représentant. c'est la deuxième ville du Sénégal. Oui, mais euh, Kara Monseigneur de Kara il a déclaré d'appeler euh, euh, le président de la République t, wax na sax au premier tour des élections en 2012. merci c'est Tout may wax nag catégorie marabout, yi may wax autre. ñoo tax. avec Abdiouf en 2000. Uh-huh. est-ce qu'il y a un résultat. Il y a un ko Abdoulaye en 2012. est-ce qu'il y a un résultat en fait si ñu nax président. nañ ko wax li xew. ñun nax président ñoom ñoom yooyu bu ñu leen nax nañu wax li nga xam ne moo xew président. wax ko ni ko nii ak nii la mën a defee politique pour mën a gagné. ni muy def nii bu demee moom mooy doon moom mooy doon responsable ay échec parce que daf li amul 2000 am 2012 avec Abdoulaye Wade mooy amaat man je dis la vérité. parti bi ci laa bokk mais li ma gis jëmul kër maanaam xëeñul neex togg gi xëy xëeñul neex te bu fekkee ni lañ continuer dox on risque d'aller. Moustapha Moustapha mhm. Moustapha. temps déglu la. dem waxtaan nañ jund nañ un peu. laata déglu naa la carrément. mais yaakaaroon ni au-delà de souci euh, presque interne. de parti est-ce que nekkul souci wu général maanaam dëkk bi ak ña nekk Touba ak gis-gis bi ñu am ci waxuma sax nguur bi mais ci acteur politique yi en général est-ce que yaakaaroon loolu mooy jafe-jafe bi. yoo xam nga acteur politique yi fi nekk gis nga Touba ma wax la benn affaire. Hmm. bi ñuy gagné bi fa. Abdoulaye Wade di gagné en 2007 avec taux bu élevé bi. Mm. politiciens yi ñoo ko defal. Mm. ci laa bokkoon man nii. boobu mm. dañu doon liggéey guddi ak bëccëg. ñu jox ñu ay oto yoo xam ne mën a déplacé wu di dem ci quartier yi gën a reculé di mën a inscrire nit ñi. di déplacé nit ñi di leen yóbbu ci centre de vote yi di sonn ci toute une ñu koy def bi ñu dikkee dañu am résultat seuls les politiciens peuvent faire mais bu fekkee ni dañu leen fa teg nee de côté benn. xam nga Lo que je salue au

président Sall en 2012 36 000 électeurs l'ont fait. En 2016, législative y passé 37 000 Il y des 26 000 mais est ce que vous a tenu en compte que le président de la république n'est pas premier premier ministre pas le ministre de l'Intérieur, n'est pas le directeur de campagne n'est pas le occupé ba ah, président de la république est ce que vous expérience vous l'expérience gagner pour xam ne nii beneen pour aw parce que vous nga waxee transhumant wala bok da ngaa taxu ñëw. waaw affilié yi ci nga xam modi APR. Mhm. est-ce que amul plus d'information que yow. bu fekkee ni day information bi ngay wax ni moom la am xam bi nga ko jox baaxul xam nga moo nekkoon le directeur de campagne de Wade. Mhm. xam na bu baax ni fa ni fa doon doxee moom moo ñëwoon instauré fédération bi nga xam ne si nii moom la fa defoon en 2006. Mhm. kon xam na bu baax a baax Touba ni muy doxee au temps de Wade demeewul woon noonu même moom bi muy conquérir le pouvoir doxewul woon noonu da doon ñëw wàcc ci base bi comme ni di doon def temps yi semaine bi passé Touba di wër dugg si dëkk dëkkaan yi excuse-moi Non, non, non, def raison pour laquelle mon am résultat bu un résultat après bàyyi yoon boobu non li résultat c'est ça la réalité. Effectivement, nga a wax da effectivement pour le moment parce que nous sommes Nous ñu bi baaxul mi ñu sommes ñu en solution ya. man solution mi ngi bëgg a taal parce que aussi du du ñun du da ngay bay ba ay élection jub si rek nga gàddu sa xaalis dem ci ay dëkk pour di leen jox pour ñu voter la ça ne se fait pas comme ça fii ci Sénégal les gens sont conscients am na loo xam ne boo ko defee defoon nañ ko 2014 def nañ ko 2017 bi passé defoon nañ ko 2012 duñ ci am résultat loolu Sénégal yi doxewuñu noonu da nga leen di responsabiliser may leen considération boo leen ko defalee au fur et à mesure li ngay bëgg ñu leen koy defal ndànk-ndànk mais doo bàyyi bàyyi élection jub si rek nga ñëw taxaw ne leen maa ngi nii quand même. lan ngay wax ci bilan wu président Macky Sall actuellement. bilan bi satisfaisant la. li ma jàpp man bilan bu baax la mais du bilan mooy man personnellement ànduma ak Macky ngir ay construction yu muy def ay chantier yu tabax parce que xaalis réew mi bu leen ko confier c' est pour ñu tabax ci c' est pour ñu def ci ay tali c' est pour ñu man li may ànd Macky programme bi ma ànd ak moom mooy dafa am benn programme ma xalaat ni mën na fexe ba employé dox nit ñi am luñ def seen ay poste nit ñi nekk ci sécurité ak leneen leneen mais pas ay constriction est-ce que est-ce que loolu même bu dee da nga wax ne que da nga satisfait est-ce que réellement ci mbedd mi ci sa dëkkuwaay foofu ci nit ñi gis nga ne que nit ñi am nañ lu ñu def seen poste que seen dund baax na et cetera et cetera en fait xam nga li ma ci mën a jàpp mooy prix yi gën nañ élevé autant danañ gis prix di jóg di wàcc chaque année nga dégg ñu ni ceeb yokku na wala suukar yokku na wala diw wàññi ko te loolu depuis cinq ans yi mën naa ne la prix dañu resté fi ñu des peut-être effort la effort bu muy saluer la ndax mënoon nañ ko yokk quand même boobaa dañ di coow rek mais duñ ci mën lu bëri yokkuñu ko ñu ko bàyyi fi ñu ko fi ñu ko bàyyi ñaareel bi si dolleeku mooy ñi ngi créer ay emploi ci lu demee ni santé beeg yeneen ak yeneen ak yeneen Moustapha hmm? Moustapha oui Moustapha fan euh, fan

Euh, am na ñu ne loolu amul. non xam nga lu tax ma xam ni am na man du ma wax loo xam ne damay wax pour boo déggee li ma commencé nga xam ne nekkuma fi di tàgg kenn damay wax lu ma gëm ak li ma sentir. effectif bi li ma tax a xam ne am dama ay sœur yoo xam ne si nii. dem nañ fonction publique ci ci loolu foofu lañ bokk. loolu moo tax ma xam ne am na am na ay copains yoo xam dem nañ inf nekk def nañ leen infirmier bañ gérer ay poste de santé te. ci effectif boobu la bokk. ma excellent c'est très bien. voilà mais au-delà au-delà de c'est très bien au-delà de ça. Mhm. Euh, boo jëlee situation école bi jàng bi élèves yi étudiants yi professeurs yi daanaka jàng amul nan nga koy jàngatee yow. xam nga Sénégal dañu am benn habitude boo xam ci ni rafetlu ma ko chaque bu ñu toogee cinq ans nekk ci année élection rek. grève yi commencé lu tax doon ñun grève démb ak barki démb daaw jéey. mais daanaka jamono yi am na waat dañu grève ba ba taxaw non dañu def non dañ non. Moustapha. Mhm. gars yi grève nañu xeex nañu def nañ lu ne. bi ñu demee ba affaire bi jàll président Macky Sall ñëw gars yi ne non nguur bu bees la nañu leen toog déglu leen ñu déglu leen ñaari at. ba 2014. Mhm. toog waxtaan tënk ay accord ne ay wa 2014 ba 2018. dara xew. gars yi yëngalaat. waaw parce que dañu dugg ci année boo xam ne si nii année électorale. non pas forcément non à dire en fait man xam nga tax ma bëgg def jàngat boobu. non xam nga lu tax ma bëgg def jàngat dama gis gis ko ma régler problème mu sénégalais yi mooy tax mu faluwaat effectivement loolu mooy yoonu carte mhm. waaw ci yoon boobu yow yaa ngi jóg pour dimbali ko mhm. te ni nga koy dimbalee rafet na mhm. ci li ma gis léegi au jàng bi doxul ça n'a rien à voir ak élection que les gens moo tax ñu dañuy dañuy d'accord 2014 ay accord léegi ñeenti at mu leen fexe ba respecté affaire bi mais kooku bu yëngalee mu ngi ci yoon xam nga état am na loo xam ne si ni mënu ko régler si ay deux trois ans quatre ans loolu yaa ma wu. parce que léeg-léeg engagement yoo am na engagement yoo xam ne président Wade da ko fi bàyyi non waxuma non dama ne. 2014 enseignants yi lu ñuy lu ñuy grève. waaw am na ci yoo xam ci du président Macky moom moo jël engagement yi ñu d'accord 2014 yi ñu d'accord mais en fait xam nga jox nañ leen ay jox nañ wax nañ leen ni leen d'ici telle année d'ici 2020 wala d'ici 2019 danañ def benn parti wala ñaari parti ñoom loolu mënuñu ko accepter bëgg

ben ñaar ñett ba ñeenti at. Mhm. bu yëngalee bu kenn wax élection. fofu la laa d'accordul ak yow ay setu. man ma dernière question rek moom moy lan moy seen seen euh, position par rapport ak élection yi nga xamanteni ne moom lañ jëm yeen jeunesse euh, bi nekk Touba. xam nga élection yi mom man personnellement mënaguma wax ni ni la ci doxé ak na man politique bi may def mom lay continuer mooy maintenir sama base politique. Mhm. maintien base politique nag ku ne xam na ni yombul man. damay dem génn li may am mu néew ak a bari ci laay maintenir sama base politique oo ma benn revenu bu jógee si état faluñu ma fayuñu ma je suis libre bu may wax du ma ci sóoraale kenn man sama politique personnellement danaa maintenir sama base mm-hmm. en ce qui me concerne su ma demee ba élection yi gën a jege su ma gisul lu ma xam dinaa xam nu ma def kon mën na mën nañu séentu suba mm-hmm. ngeen génn jege élection yi nga génn sa base dem feneen effectivement c'est très possible probabilité mais seen kii bi sax bolen leen bolen boo leen quitté Macky Sall hmm. est-ce que dina am lu ko wàññi. en fait bon <laughs> parce que am ngeen am ngeen doole. parce que Touba Touba déjà Touba déjà vous êtes affaibli. boo génnee mooy que dañuy gën a dañuy faible encore. Ah, l'essentiel man personnellement. Hmm. man Moustapha Seck li ma gis xamuma ko. te bu ñu ma lettul baa firi ma damay quitté navire bi bala muy suux ak man. jërëjëf. yow da koy falu ngay andal non. fal ànduma ak kuy falu kuy liggéey lay àndal. Ah, xam nga aussi mënuma non non non xam nga aussi non xam nga lan la bu ñu dee liggéey bu ñu dee jëflaan man su may jàppale Macky mhm. dañu may jox au moins benn considération boo xam si dana xam ñoom ñi nga xam ne maa ngi liggéey ah Macky joxu la considération parti appel joxuñu ñu benn considération ñun waa Touba. Ah man je pense que bien matériel ngay bëgg a wax. non pas bien matériel non jamais. non non non non non non non non bien matériel xoolal si moom laa mën a dégg non non non euh, léegi loolu joxoon nañ leen joxuñu leen Kader Kader c'est pas un problème man c'est pas un problème man soo bëggee dem soo bëggee voyage damay voyage ñaanuma diplôme uh-huh. am naa xaalis bu ma am naa oto maa ngi ko garé une voiture qui coûte beaucoup d'argent maa ngi ko garé si biti parce que amul problème problème xaalis vous considérez toujours jeune d'accord Kader oui je suis jeune toujours jeune je suis toujours jeune j'ai pas j'ai 35 ans